بالعزيم قدير الغفار وكل محين على بطل به وكن مقديرا لي فإني سائر بالعسيم قدير القبر على حلوى غبيد قلب ونعر جناني وسيدني الله لتقى وانر جناني وسيدني الله وهب لي نجاة وسيدني الله أصلح أموري وزدني نايا لتقن وجناتي وآخرج يا بواسدني وآخرج غير سخام وفرجهم لتقا وأنجانا ولا تخسيني قني مالوكا ولا تفدي عني بكوني لا مالكا ولا تفدي عني بكوني لنا ولمن لعود وخدا لمن لعودا يدا وخلي صلاة حلال مصطفى وسلم سلاما عليه يا دور على المصطفى وسلم سلاما عليه يا دور ما رغبا ما رغبا ما رغبا بكي marhaban marhaban sangop sang ya marhaban marhaban waaw sëñ Saliou moo baax marhaban marhaban sangop sang marhaban marhaban sëñ maraaban maraaban sangoop sang yaa waaw Sëriñ Saliw moo baax maraaban maraaban sangoop maraaban maraaban Sëriñ Saliw Mbàkke baax marhaban marhaban sangop sang waaye alaaji Falilu moo ba marhaban marhaban oh, sang ban marax ban Cheikh Abdou Khadir Mbacké baax marax ban marax ban sangop sangaya gañi Cheikh Abdou Khadir moo baax marax ban marax ban sangop sangaya mara xaban mara xaban Cheikh Abdou Khadir Mbacke ba mara xaban mara xaban sango sange gaañi Cheikh Abdou Khadir moo baax balay sa barax ban marax ban sangu daa rabban ma rahban Cheikh Abdou Khadir Mbacké baax ma rahban ma rahban sangop sang ya waaye Cheikh Abdou Khadir amul morom mara mara ban sango xaadim laal na ma nag laal na ma te nii wax na dëgg nii muy jànge jàng naa ci moom sëñ kere bi yaayam génne àdduna kilifa gu baax gu ne ñëw na nuyu ko fekk na ko ci kër ga jaal ko ma siyaar ku ne xam sama diggan moom ajuma gaawale bi toog fi sama nuyoo moom maa ngi koy teg ca loxo gis naa ni ngeen demee waaye tey nit ñi yëngu nañu njàng mii gëñ nañ koo dégg ci Abdou Khadir Sey lii moo di njàng njàng day tege ci jàng ko te muy dëgg te doo rege ju bi su ko Abdou Khadir sëy ma see daaj sëñ Mahamadan Jobbe ni ci biir nii bi waa kër sëñ Massamba ni nëpp sëñ Modou Fatick xarit taxaw njabootu Cheikh Massamba gi génn Abdou Khadir Sey daaj ko foo toll di ko déglu lii mooy njàng yoon wi nag a ngi nii lu daal koy xaaraan koy toggantoo ko ko teg kuy toon jutta kuy fay du mucc kuy xëccoo du noppalu mm. coo doo coo ca teen ba ñaamul baaga te bëgg duy waaye ñu ànd ak sëñ Bamba duy nañu ba dem foofu noo kenn lii waaw euh, duy nañu ba dem sëriñ bi moo mën a fay moo mën a teralas gor mhm. moo tax tey dëkk bi yëngu na wallaay yëngu na papa yaasin papa dëkk bi yëngu na mhm. sëñ dëkk bi yëngu na Cheikh Mbacke Mbuub kay macha allah fi mu ne xol yi tooy na xol yi sedd na sëñ Xaadim yàlla na baat bi weer bu baax a baax incha allah mën nañoo delluwaat mën nañ ne ci waxtaan wi. Mhm. sànq rek euh, yaa Seyda bu fekkee mën ngeen ma koo may kilifa yi nee na am na benn euh, question bu mu bëgg a posé. sëñ euh, Saliou Samb. waaw ci allure bi nga nekkoon rek. Mhm. parce que thème bi am solo la. te it jamono du koo laaj. Mhm. pour leer dëgg-dëgg. lan mooy mission Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul. damay wax ne ba léegi senegal jariñoo jariñoo guñu dëgg-dëgg. lan mooy borom sunu maam muy lii nga laal léegi. digganteem ak yàlla nga xam ne tey yaa ngi ñuy jàngal tawxid bi nga xam ne moom la incarné woon ci waxtu woo xam ni kenn ñemewu ko woon euh, sëñ Saaliw bëggoon naa xam dëgg-dëgg fi nga nekkoon lan moo waral lahu shukuri bila kufuri wa huwa nasir minhu fii daay foofu laa bëgg nga téye ñu fa jàngal Sénégalais wala nga jàngal àddina beneen facette ci Sëriñ waaw jërëjëf yaa Seyda lahu bilaa bila kufuri xam nga lu ko indi lan la tontu waskuru li askurukum waskuru li wala takfurun waskuru li wala takfurun lahu sukuri bila kufuri la ilaha illallah yàlla ku ko santul da nga koo weddi te loo bëgg a xam na nga xool loo bëgg a xam nu mu toll ci baax xoolal contraire lam nu mu toll ci safaan weddi yàllaa gën a bon ci bon bon yi moo tax sant yàllaa gën a baax ci baax baax yi te yàlla bu tuddee sant rek weddi lay fekk la in sakartum la azidannakum lu ci topp la in kafartum inna la sadid moo tax ba muy wàccaloo yàlla lu nekk mu koy wàccaloo barabu safaan ba dani ko wa anzili sukra makaanal kufri lahu shukuri bila kufuri aaya bee la tontu waskuruni wala takfurun moo tax bi mu ne lahu shukuri bila kufuri <laughs> moom lay sant te du ànd ak weddi parce que yàlla xamal nañu ni sant mooy contraire weddi moo tax moom bu santee day xam le ni yàlla man ci sant la laa dëkk xam nga sëñ Tuubaa dafa wax yàlla ni lahu xitaabi shaakiran laa shaakiya dafa xamal yàlla ni ko maa ngi janoo gi yow di sant shaakiran laa shaakiya du ma mas a jàmbatu sëñ Tuubaa bu doon kuy jàmbatu fa mu bind xasida ak yaa xayra day fi maa ngi koy wax am barki démb ci émission bu doon kuy jàmbatu foofa jar na jàmbatu. comme ko bindee baa fali mhm. jar na jàmbatu. bu doon sëñ Tuubaa bu doon kuy jàmbatu waaye laa chaque yàlla wax du ma jàmbatu sant rek shakiran laa shak la laa na du ma jàmbar yàlla dara lu mu def ci man moo ma neex bi ma ko jooyalee sama mbir sax dootuma ragal lori kenn mhm. lastu axaaf durra xalqin baadama fa wattu amriya ila rabbi sama wax feneen ni lastu ufawwidu ila gayril jalil amri wa ma faala bi fa huwal jamil sëñ tubaa nee na su ngeen yeewoo sama kër yi tàkk sama doom faatu kontaan naa bi mu neexee yàlla laa amatul droit mu naqari ma nit ñi war na noo xam kooku de nit ñi war na noo xam kooku fan la nekkoon ci yàlla sëñ tubaa nee boo gisee lu ma tubaab bi mas a def mu neex ma mooy lu ma mas a def xam naa ni bu ci yàlla àndul du jàll moo tax dara jàllul maa ngi doon wax sëñ am ni ko dunduk sëñ tubaa yanuwul maanaa ci mbiru nit koo xam ni mës la def lu